ñu ah. Ah. waaw ñu dem waaw ñu dem ah. jërëjëf suñ mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen siyaar mbokk yi ñu am mbégte tey ñu teew fii ci pikin falaay Baldé li ñu fi dajale nag mooy Yaram Production ñu dëgmal tàkkusaan bu rëy muy samedi le 24 décembre fële ci arène nationale bu pikin ñu boole ci Tafa ak Gamou Gueye numéro 2 yaakaar naa ne tàkkusaan googu ay xale yu bëri dinañ fa bëree ku si mel ni xale bi nga xam mooy Osodou ak Caatu Fora. waaye bu leen fàtte na tamit titulaire dafa war a bëri ak gros fil yaakaar naa ne nag ñu def ñaari drapeau yoo xamante bi nii mbër yooyu yaakaar naa ne des nañ ci xelu amateur yi ba tey mbër yooyu des nañ ci xelu ñi nga xam ñooy supporters yi ba tey muy Abibou Laye di Zil Balde junior bi Serigne Fallou bi ak ki nga xam ne mooy Papa Yada wax dëgg yàlla ñu rendu leen ci hommage tuddee leen drapeau muy ses boo xamante bi nii rafet na trop tey nag ñu teew fii Pikine Falaye Balde jël si waa écrit bi yëpp li ko dagee ci sakop 2 ma may ko bës tuuti ba ki ci gën a mag ba ci Jules Baldé ba ci Ama ba ci Malo Sera sama xarit ba ci ki nga xam moom laa langal nii muy alaaji sondeel mu baax mi ñu fas ne waxtaan ak ñoom nag ci drapeau bi ak ci sess bi nga xam ne moom la Bakary def ànd ak waa Yaram production ànd ak Lat Diop ak équipe bi yëpp ànd ak président Gora Ndoye ñu koy jaajëfal bu baax a baax dañuy nuyu pël bi bàyyi ko mu néew mbokk internet yi bu ko defee ñi mënta ñàkk ñëpp ñu sànni ci kàddu seen diggante ak Abibulaay parce que fii la doon daane dooleem ba xëy wàcc ci waar wi wuy ji suñu borom ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana te yeexañu te rafet nañ ci njort bu baax parce que nit ku baax la nit la koo xamante bi nii wax dëgg yàlla yaram may na ko lu nekk pël bi maa lay siyaar di la bëgg waaw ñooy doole siyaar bu wér waaw di di sant yàlla rek di sant yàlla bu baax xam na di kontaan di kontaan si geste bi waaw di kontaan si promoteur bi di ko ñaanal lépp lu mu bëgg rek si làmb yàlla ko suñu borom defal wax dëgg yàlla xam na c'est la première fois euh, promoteur gestu mbër comprendre mhm. kon moom muy euh, muy dooram si làmb ñëwee nii kon ñëpp suñu xel day dal mhm. xam nga dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm xam na mhm. di ñaanal góorandooy bi nga xam ne yàqu si dara wax dëgg yàlla boobu ba léegi ba combat bi taxawee suba ngoon guddeeg bëccëg ñoo ngi si euh, ñoo ngi si déggante bu ko ñaanal moom tamit lépp lu mu bëgg rek si làmb mu làmb ko tax a jóg yàlla ko suñu borom defal waaw naan li nag geste bu rafet la wax dëgg yàlla geste bu rafet la di ko ñaanal nag Mm. lépp lu mu dugg si làmb rek yàlla na ko suñu boroom defal wax dëgg yàlla xam na mm. parce que naan jàmbaar rek moo mën a fàttaliku luy xam na mm. wax dëgg yàlla kon dañ koy ñaanal lépp lu mu si dugg rek ak lu mu si ut rek yàlla na ko yàlla def jàmm mu def si tam beneen geste boo xam ne moo gën a garaaw mm-hmm. lépp loo xam ne rek am na ko si làmb bi rek wala lépp jaay ko si làmb rek da ko ah, da ko yéene waat delloo ko waa kër mbër bi mm-hmm. kon dañ koy ñaanal yàlla ko suñu boroom defal jàmm mm-hmm. di woo amateur yëpp nañ ñëpp ñëw parce que defalu ko boppam da ko defal ay mbër dafa ko Abdoulaye dafa ko Papa Yade xam nga ñu ñaan amateur yëpp nañ jénn na waa Pikine yëpp jénn doole ko si bis bi xam ne def na loo xam ne lu jafe la xam nga di ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm si bis bi ba nga jekk saaye Gora Ndoye wax ca yow wala promoteur bi wala nga jekk saaye gis ñu def drapeau Jules Baldé Junior sa xel lan la daj waaw dañ siy kontaan rek dañ siy kontaan parce que da nga xam ne jénn si ñun fii lañ doon daanee doole nit ñun ñëpp. comprendre mm. yàlla jël ko mu nekk nit ku baax koo xam ne. Mm. yàlla nii rek la mu doon def dañ naan ku baax. Mm. yàlla du ko fi bàyyi. mu laa dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm. aussi tamit di ñaanal promoteur bi encore fois di ko ñaanal yàlla na ko suñu borom moom mu am idée bi. moom mu jël xaalisam def loolu dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm. naan na gars yi ñëpp ñëw jénn. teeru ko na ñëpp ñëw jénn taaral bis bi. xam ni jénnul làmb. Mm. yoonu làmb wax dëgg yàlla ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm. Mm. loo mën a wax ci Abibulaay yaakaar naa ne bu fekk ne mën nañoo wax yu bëree bëri sa benn loxo la. Abulaay lépp laa mën a wax si moom kon moment yi ñu toll rek di préparer combat. Mm. même bu amoon komba day bàyyi lépp moom dafa mel dafa xamoon ne day gàtt fan. Mm-hmm. parce que boo waxee naan la lépp yow la. lépp yitteem yëpp la doon bàyyi. Mm-hmm. ndax man. xam nga nit ñu bëri doon nañ ko mere naa ko pourtant mbër na Amadou mbër mhm. comprendre moom mooy sampion bi ñu dañoo ñëw rek pour participer mhm. kon dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm mhm. Abdoulaye moo nekk koo xam ne mun naa la wax képp koo àndal mun na ko mere wala na ko xuloo moom moom yàlla dimbali nañu ba nu mu fi nu muy dundee ba nu ko fi yàlla di moomee mosuñoo meroo mosuñoo mosuñoo xuloo comprendre mu nekk nit ku baax koo xam ne bu ko yàlla fayee jëfam rek kon dugg na àjjana bu baax baax yàlla na ko suñu borom xaare àjjana Abdoulaye moom mënuñoo wax si moom ba daj Mm-hmm. dañuy cof rek parce que xam ne ku yaatu la ku généreux la koo xam ne da doon mm-hmm. boole groupe bi tey groupe bi mun naa la même coow bu amoon moom mooy dox tànkam mm-hmm. na ma ama ah yow yaa jiite am wooteel defal nii defal nii xam na moom moo wax dëgg yàlla ku doon defar la ku doon boole la dañ ko ñaanal yàlla na ko suñu borom xaaree àjjana rek fi may jeexale yow 17 février 2018 nga bëree nag Papa Sow am ndam si kawam moo la gunge woon ci tuus mi ci fecc meeg yooyu 5 février naroo ko gis kan mooy jël relève waaw Aboulaye Aboulaye moom dafa mel ni fekkoon da ngay xool sama premier combat Modou Lo ba muy taxaw. Mhm. kii la ma woo moom nekkee euh, Tunisie dafa ma woo ne ma moom donc doxuma sax. Mhm. léegi mënatumaa tus mhm. xam nga ñaanam kon ko mbébét yooyu dañuy ñaan rek yàlla xam nga yàlla moom yàlla suñu borom la. te tamit groupe bi bëri nañ ku nekk mun na ñëw man damay fàttaliku rek. boo xool naa 5 février 5 février boobu dem nañ ñu may ñu xaalis comprendre wóor na yàlla ma mu woo dëkk bi yëpp ne leen kaay xam na moom dafa nekkoon nit ko xam ne farceur la mm-hmm. Mm-hmm. woo nit ñi ne leen kaay leen bër bi yor na xaalis kaay mooy loolu xam nga mm-hmm. wax dëgg yàlla loolu la may gën a fàttaliku ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm rek yàlla na ko suñu borom xaara àjjana Ablaye moom dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom xaara àjjana buñ doon pare maa kii mun naa la wax maa kii ah këts bi ñun ñun ñetti ñooñu ay complice lañu woon si box beeg si yooyu yëpp xam na moom moo doon tee joxe ndox yi joxe lépp xam na pare saa mu suxlu pop na ko sonn day day kii rek day caaxaan xam na kii daal moom moom tam mën na la wax si Abdoulaye lu bëree bëri dañ koy ñaanal yàlla na ko suñu borom xaare àjjana mhm. aussi tam di ñaanal promoteur yàlla na ko suñu borom defal jàmm en tout cas mhm. geste mhm. a a tamit dañ tamit ñu delloo ko njukkal tamit mu tëgg ñu bëree ko si jàmm salaam mm. képp kuy kii écrit Falaye rek mm. yàlla na ko delloo njukkal moom promoteur bi mm. na ko macha allah mbokk xam naa ne suñu kilifa di Jules mooy tëj waxtaan bi booy sondeel maa ngi maa ngi dool ziar bu baax a baax sant yàlla bu baax a baax ngi si jàmm maa ngi jàmm alhamdulilah une moom wax dëgg bu ñuy wax ci moom duñ jeexal mm-hmm. ndax Aboulaye ñun ñoo doon ànd comme ni ko Ama waxee rek foog naa équipe bi sax man rek maa fi bëreeg moom mbapat balaa moo ñëw ci ñun. benn final. Mhm. te final boobu yàlla def na moom moo ci amoon ndam. kon tey foog naa pikin mos nit mosuma daan Pikine benn Jules Baldé Junior rek moo mos a daan. kon champion la woon. kon tey maam dañ koy ñaanal yàlla. Mhm. yàlla mi mën. Mhm. yàlla na ko yàlla xare àjjana. te tey te yéexee ñun ñii. yàlla nag moom. bu soxlaa ku soxla de da ngay ñàkk. Mm-hmm. mais Jules Baldé Junior nekkoon na kenn ci ñun. Mm-hmm. ndax maanaam ni ko ama waxee rek ndax Jules Baldé Junior moom. Mm-hmm. da doon am man fekkee naa benn kii ñu koy nettali mu ne maanaam benn tabaski boo xam benn anecdote benn tabaski. maanaam mu dem ba xotti benn yére. Abdou juuf benn waaye bu ñëw wax Abdou juuf ñëw soxla benn yére war dem fenn mu jëlaat yére ba jox ko ko. kon kooku nit koo xamante ne maanaam kenn du moom. kon tey maam dañ koy ñaanal bu baax a baax a baax a baax yàlla na ko yàlla xare àjjana ci barki borom Touba. xaaral ma ñëw ci capitaine bi sama xarit bi anam. <laughs> ah gaynde. ñoo lay ah, bu baax. yaakaar naa mën nga cee yaatal baax a baax. waaw ah, ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur waaw di gërëm promoteur bii def lii mm-hmm. xam ne rafetlu nañ ko lool mm-hmm. waaw ndax man na ñun la ko defal Zilbala mm-hmm. Junior moom lu ko waaye defal la ñun nga ko defal waaw ay famille lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. dañuy lekkandoo di naanandoo di solandoo yëre defandoo lépp. di soxlante ay gàllaaj kon loolu bu ñu wóolantewul duñ ko def kon ñun famille lañu. waaw li si wóote wóote daal moo Papa Yada. ñoo ngi leen di ñaanal fi ñu tëdd. yàlla na yàlla xare àjjana. fi def di ñaanal promoteur bi. li mu def ni exemple la. yeneen promoteurs yi. war na cee mën a gis seen bopp. ndax solo. ku dee rek ñu fàtte la àdduna doxewul noonu waaw ndax ñun xamuñu fu ñuy mujj xamuñu tey la xamuñu suba la dañu ñaan yàlla muy yéex rek waaw kon moom li mu def nii yàlla na si gis lu raw njortam mu def nii yàlla na fu muy xalaat si promoteur yàlla na ko dépassé ndax lii lu baax la amul benn intérêt bu mu si séntu da koo def rek da yàlla tax da ba mu koy def amul kenn koo xam ne yaakaar naa war na si xalaat dërëm moom walla dara kon loolu rek mbégte la ñu ngi koy ñaanal di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal tawfeex di mm. ñaanal ñaari mbër yi mu ko tuddee ñi nga xam ne mm. dëdd nañu mm. yàlla na yàlla xare ajjana yi kawe ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. yàlla yàlla jàmm macha allah am na solo xaaral ma jege Bakary Bakary teel ma ni day gën a baax <laughs> eh, baax baal amu téel ñu ngi lay siyaar waaw Modou Anta ange billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim gilaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant suñu ñaari waajur Modou Anta maa ngi lay fay di nuyu waa écurie Falaye Baldé bi yëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo kilifa gi euh, ki ci fekk ni Jules Baldé di nuyu bu baax champion bi Ama balde di sant bu baax ki nga xam ne moo di góorandoo di ko nuyu bu baax di nuyu aussi waa kër euh, Abibulaay Jules Balde Junior bi nga xam ne moo moo ñu moo ñu fi dajale tey di leen di sant aussi presse bi assistance bi ñu ngi leen di ñu ngi sant bu baax di leen gërëm macha allah. Hmm. waaw euh, Modou Anta ñun dañu nekk ay ay ay jeunes aussi ay jeunes yi nga xam ne mën naa ne ba ñuy ba ñuy concentré wu ci làmb. donc ñun ñooñu presque ñoo concentré ndoo ci ci ci làmb quoi dañ nekk ay xale yoo xam ne dañ leen toppoon ci làmb gis gis ni am na ñu avenir ci làmb ku xool euh, Jules Balde junior bu doon bu doon génn fii di di di bëri ci da ngay gis mbooloo bi nga xam ne moo ko doon topp donc nga doon gis avenir ci moom quoi ci wàllu làmb danga doon gis kii nii am na am na yoonu làmb quoi donc bu ñu demee ba tey ñu ñu jugee fi manquement la ci ñun ñi nga xam ne ay amateuru làmb lañ tamit quoi donc euh, ñu jugé nécessaire que nii ñii euh, buñ fi jugee yoon la jugee nañ fi mais seen i seen i seen i performance ak seen i perspective euh, jugee wu fi waruñu ko fàtte donc ñu gis ni yoon la ñu leen di fàttali ko at bu jot donc Yaram Art Events ñu toog xalaat si bu baax a baax ñu ne yoon la ñi nga xam ne ay jeunes lañu ni ñun ñu bàyyee ko fi il faut ñu leen di rendre hommage at bu jot moo tax ñu jël ci ki nga xam ne ku mel ni euh, Jules Balde junior bi ak Papa Yada ñu war leen rendre hommage incha allah le samedi 24 décembre waaw. waaw amateurs yi di leen di leen di leen di leen woo rek ci ci ci combat bi di sant aussi euh, waa Pikine bi yëpp donc depuis ba ñu defee loolu ku ci mel ni Pambake ba ma ko woowee téléphone wax ko loolu da ko rafetlu gravement ku ci mel ni góorandoo de même. donc bu ñuy bu ñuy jot écho yi rek ñun ñun ñun ñun dafa dafa dafa sedd suñu xol trop donc ñun lu ñu lu ñu war lañ def donc làmb la ñuy dund làmb la ñuy def donc yoon la aussi ñuy delloo njukkal làmb bu ñu jëlee grand combat bi tuddee ko amateuru làmb donc yoon la aussi ñuy rendre hommage ñi nga xam ne dañuy dund dañ nekkoon ci làmb ji di ko dund c'est très normal ñu def loolu ñuy wax amateurs yi bés bi seen bésu bopp la làmb la d'une manière générale dañ ciy rendre hommage ay mbër di ci rendre hommage amateuru làmb yi donc ñu xam ne làmb ji daal euh, nitul làmb yee ko moom Sénégal bi yëpp a ko moom ñu leen ciy xaar incha allah ci lu bare ba di ci gërëm aussi sama sama frère euh, Kandji donc moom tamit mu rafetlu ko bu baax a baax nee na drapeau bi sama drapeau bu bopp la yow li nga def nii defaloo ko kenn ko dul man man kon li ma def nii nag Sénégal laa ko defal <laughs> macha allah waaye rafetlu na ko bu baax a baax ma ko ciy sant bu baax a baax waaye di leen sant yéen ñëpp di sant écurie bi yëpp accueil bi nice na rafet di ñaan yàlla abibulaay mi yàlla yàlla yàlla xare ko àjjana donc njaboot gi mu fi bàyyi aussi yàlla teg ci loxo macha allah. waaw maa ngi delloo ziar. waaw tey yéen waxtaan si affaire boo xamante ne affaire bu doy waar la quoi. fi mu nekk xel yëpp sori nañu. parce que Abiboulaye bi ngeen di waxtaanee am na foo xamante ne ñun ñii ñëpp jaar na fa ak ñun man sama diggante ak ama mi moo nekkoon si diggante bi très sincèrement lépp loo xam ne da doon jóge si kii bi ñëw si man si moom lay jaar am na yoo xam ne tamit bu ma ko amee soxla moom laa ko doon sama homme de confiance la woon comme ni ko kii waxee nekk na tamit koo xam ne liggéeykat la woon te tamit nekkul woon kuy fecc kóllëre nekkul woon tamit ku mën ku amul bàmmeelu biir mënoon na jenc ay secret dañ ko doon liggéeyloo fii liggéey yoo xam ne am mi da koy wax ne bu dee doo bañ léegi nga léegi nga léegi nga gaañu mais du tere moom buñ xëyaatee da siy nekkaat day dem ba ngay yan ko loo xamante ne moom lii du yanam sax mais du tere da koy def jàmbaar la woon am na lu mu bëggoon am na ambition tamit mais sunu borom moo ne woon lii mooy destin mais lu ci mënti am daal wax si Abibulaay man mënuma ci sori daal mais daal ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ay xéewal fa mu nekk. ba bañ ko fay fekk. parce que ku baax la ko très sincère. waaw Modou Anta maa ngi lay dolli ziar di la bëggee bu baax a baax di am contentement bu baax parce que tey mën naa wax da nga ñëw fekk ma sama kër mm-hmm. waaw ndax fii nii. mën naa wax ñun ñëpp képp ku nekk Pikinois nekk jeune dëkk fii ci xurunaar bi rek fii fi nga foowee man fii mën naa wax Jules Baldé moo fi doon indi muy bëre ñun ñu nekk ay supporters am dañ ko seetaan mbappatu Papa muy def ay jaloore ñu koy topp mbappatu mbay sàmb di ko topp mbappatu Père Aline Seye topp ko fu ne kon tey bu ñu demee tey jii yàlla daf sama diggante ak Pathé aussi mago ama ñu am ay relation ñuy ànd dem mbapat di def lépp kon tey man su ma ñëwaatee fii mën naa sama kër laa ñëw ndax ñii ñëpp samay rakk lañ ñoom ñii ñëpp ñëpp ñëpp ba ci maalaw mii tey jii nii comprendre nga parce que ay dëkkandoo yu yàgg lañu et puis suñu kóolóore joxe jóge ci suñu papa yi parce que man sama papa chauffeur la woon nee na ma dama daan ànd ak Pape Falla ñuy dem fu nekk ci làmb ci àll bi kon tey jii yi mën naa fii sama kër la waaw moo tax dama kontaan bu baax baax bi ngeen ma fekkee. Mhm. séeréer yooyu ak kii ñii ñëpp dañu wax ah. yëpp di woo waa bopp Coor waa Asem xam na waa Kaku waa Cité Sotiba xam na Gazelle Cité Police xam na Jékki Penc Ndam xam na cosaan suñu angaar waa angaar ñoo leen woo ñëpp ñun nañ jël ñun ñëpp nañ jéen bu bis ba jël drapeau bi ñun ñëpp ñu àndandoo dooleel promoteur bi parce que lii ñun la ko defal comprendre ñun nañu ñaan yàlla bu dee suñu dërëm sax na si dugg muy tikke yeeg yooyu xam ne bu dul dara laa la wax maa ngi woo ñëpp man am bale maa ngi woo ñëpp bu jour ba nañ daje nañ daje buñ ko ñëw Abdoulaye ñun ñëpp ñu doxandoo demandoo di woo ñëpp nag di woo àndandoo Abdoulaye yëpp wax dëgg yàlla di kontaan si promoteur bi tamit aussi bu baax a baax mhm. jërëjëf baan léegi jëlal ma ah? baax na c'est bon c'est bon acca mbokk yi yaakaar naa ne fii la ñuy taxaw ci waxtaan bi ñu ngi fi ak suñu kilifa muy Jules Baldé yàgg naa ne waa Yaram production ñu ànd ak ñoom tey ñu déplacé wu ñëw andi leen drapeau Jules Baldé nga xam ne ndaanaan la woon ci làmb tudd Abibou Laye dippee la boppam ñu bàyyi la nga nuyoo bokk internet yëpp ñu dugg ci waxtaan bi maa ngi lay delloo ziar salaamaaleykum ñu sant sant monde entier bi ñu ngi leen sant sant waa pikin sant waa Bignona ngam Abdoulaye fa la papam jógee ñu sant ñoom ñëpp sant mboolum julliteeb sant si njaboot suñ Tuubaa gi ak seen ak suñ Fall. waa Yaram production bi ñu def nan nga ko waaw sess bi def sess noble ndax nit gaañu na fi am na mbër yu mag yu gaañu fi gars yi tuddewuñ leen làmb mbër bu ndaw daa wàcc liggéey ñu tuddee leen làmb kon yal leen yàlla yokk. kàttanal leen dooleel leen ban mu doon ay promoteurs yu mag di ko def ay édition yu bëri bëri bëri si barke Sëñ Fallou mm-hmm. bi nga déggee tey cesse bi a daj nga ne ñu ne drapeau Jules Baldé Junior. waaw sama ndax sedd na sama xol trop trop trop trop ndax mu ñu xol mënoon nañ def comme ñëpp rek bàyyi mu sedd mm-hmm. ndax ñeneen ay ndaanaan ndaanaan du sekk ay mu ngi bëri gars yi bëri nelaw nañu fii waroon Bambara Falay Baldé mm-hmm. Papa Kan Maam Gorgui Ndiaye ñu kii astafurlah Mbaye Guèye ñooñu ñëpp bëri gars yi Double Less ñoom ñëpp war nañ leen defal drapeau mm-hmm. waaye ñoom bu ñu xool am éducation ne ah xale bu ndaw bi nañ ko defal ah yàlla na leen yàlla yokk rek lan leen di ñaanal rek si barke Sëñ Fallou Mbacké mm-hmm. Mm-hmm. promoteur bi mi na xam nga ko promoteur moom miinu moo ko nag miinu ko waaw jëf ju rëy jëf ju rëy mooy tax ñu gën a xamante waaw ndax ku def rëy am lu rëy

jox nañ ko cosaan mu séddale ko équipe yi fi nekk yëpp waaw ak ah, écurie yi fi nekk yi Falaye Baldé mu séddale ko écurie yi fi nekk yëpp ñëpp ku nekk jot ko xam ne kat ñun ñëpp waa Pikine lañ doom Pikine moo xewle moom lañu kii kii ñëpp si war a taxaw ñëpp war a dugal seen loxo ñëpp war a ñëw fees stade bi del ñoo xam ne carrément Pikine jóg na koy ñaanal ñaari bëri titulaire koy bëri. yàlla may leen fan bu gudd wér gu yaram mosal leen si ay dog-dog ñu bëri ko si jàmm salaam ku yàlla may ndam ñu xam la ku yàlla may defet nga xam ne loolu làmb loola rek gagné ak niil moo am yàlla na yàlla def nag mu bañ am niil na am am ku yóbbu ndam la rek mu jig la quoi. jërëjëf Fall. ok jërëjëf ñu ziar ñëpp di màggal ñëpp si barke Sëñ Fallou Mbacke yàlla na leen def nu wér ak jàmm si barke Sëñ Fallou.